waa xanaa sant yàlla di ko ñaanal parce que maire moom lii duñu ne guléet ci quartier bi lépp li ko war depuis mu jël maire bi ba léegi mi ngi koy def ci quartier bi kon nag ñun bàjjanu gox yi dañuy gën a fier pour kontaan pour ànd ak moom ci liggéey bi muy def ndaxte bu fekkente ne lii feebar bi dafa ñëw dugg ci àddina lépp te mu nekk xeex boo xamee ne booy xeex ak loo xamee ne gisoo ko xamoo ko kon da ngay fagaru moom nag desu ci gannaaw en tant que maire mi ngi jàppale bàjjanu gox yi mi ngi jàppale population bi ñëpp ñu ngi sentir ne am nañu maire ci suñu commune Fann Point E Amitié metti na parce que sensibilisation bi dañu nekk groupe bàjjanu gox ñu tas dugg ci quartier bi di def ay VAD visite à domicile di dugg ci quartier bi di dugg kër par kër di waxtaan ak jaboot yi di leen xamal feebar bi fi mu toll ak tëye xale yi ak set gi ak sell gi ak moytu ba xamee ne mën nañoo mën a mucc ci feebar bi dajaloo bi booloo bi lépp dañ koy daw ñun daal dugg nañ ci quartier bi sensibiliser fii ba Fann Résidence dugg nañ fa parce que ñu ngi dépendre fii ci ñun dugg nañ fa sensibiliser ñëpp ñu tëye xale yi parce que man damay dox ba si yàgg gis ay xale yoo xam ne ñu ngi ci mbedd mi mais man damay tikke damay mujj a dem ne leen yéen lan moo tax jàngiw leen liñ may jëkk a wax mooy dañu arrêté école yi lan moo tax ñu arrêté école yi ñu ne feebar bi man leen ba pare ñu dugg ci seen kër yi sensibiliser leen sensibiliser seen parents yi ñu wax leen ko ngeen génnaat fii di football wala di jouer ay égat dañ leen di dàq pour ñu duggaat dem toog boole leen ak seen parents yi pour ñu tëye xale yi ci biir kër yi parce que xam nañ ne feebar bi doxul ñun ñooy dox di ko indi di ko dugal ci biir kër yi comme nag ñun ñoo koy indi ci biir kër yi il faut nit ñi jël seen matukaay ba nga xamee ne feebar bi du law bu lawul rek mën nañ ci génn mais nag da ngay jékki-jékki ba si àgg dégg koo xamee ne mi ngi yore virus moom si boppam sax du xam fan la ko jëlee waaw muy kaa communautaire yoo xamee ne bu ñu toogee ci kër yi wax dëgg yàlla dinañ ci mucc nit ki da ngay am lu am importance nga doxi ko boo ko doxiwul loolu nga toog tey protéger wu surtout di takk masque yi booy jàkkaarloog nit booy wax ak nit tey moytu mais fi mu nekk nii nit ñi ñu si bare dafa mel ni dañu comprendre que ne feebar bi am na mais ñun ñi nga xam ne dem nañu formation Dakar Plateau